mbokk internet yu 5 TV maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci réew mi ñu dooree ko ak njiitu réew mi Macky sàll moom nag ci waxtaan bi nga xam ni moo doxoon ci digganteem ak secrétaire exécutif national bu APR dal na ci kaw responsable yafa li waral lu ni mel na ko mooy daa gis ni ñenn si ñoom dañoo bañ a joxe seen cotisation bi ñu warloo ak partie bi weer bu ne ndax juróom benn fukki membre yafa seen cotisation matul sax benn million ci kopparu CFA te nag weer wu ne rek seen cotisation war naa àgg ba si juróom-benn million loolu nag merloo bu baax a baax ki nga xam ni moo di Macky Sall ba tax rek mu ni leen doo leen rus ndax rek nan ngeen mën a defee nii parti boo xam ni def na lu nekk ngir yéen ba tax rek mu ni li ñu def lu ñaaw la te it nag lu kenn mënuta nangu la ba tax rek moom Macky Sall jamono ji lépp lu ñeel cotisation parti boobu di APR ci loxoom rek la ko daal di teg lu bees am na si ni ñuy joxee suufu domaine national bi ndax njiitu réew mi Macky Sall signé na benn décret boo xam ni daa jëm rek si ni ñuy joxee suuf soosu euh, si noonu nag bokk na si euh, bu dee suuf yoo xam ni yu gën a néew fukki hectare la conseil municipal moo koy joxe gannaaw bi ko préfet ak sous préfet nangoo bu dee nag lu ñeel joxe suuf ci lu ko dalee fukki hectare jëm juróom fukki hectare préfet départemental rek moo am sañ-sañu joxe ko bu dee nag suuf yi nga xam ni ëpp na juróom fukki hectare gouverneur yu nekk ci région yi ñoom rek la ñu jébbal liggéey boobu euh, ñu woyal ak société africain de raffinage nga xam ni nag coow la fa ba tey rek jeexagul Samuel Sarr la ñu ne rek ñoo teree am conseil d'administration bi nga xam ni moo waroon a am niki démb ci alxames bi ci fàttali rek njiital këru liggéeyukaay boobu di Locafrique moom nag daa déggoowul ak Amadou Ba doomam di Xaadim Ba te Locafrique nag actionnaire la foofee ca Sarr loolu nag moo waral ba Xaadim Ba demoon ca tribunal du commerce ngir rek jébbal fa ab bataaxal ngir ñu toxal réunion boobu ba noppi nag ñiy liggéeyal papaam bañ see bokk waaye tribunal dafa ko bañal ba tax rek mu ñëw ñëw ca réunion ba ànd si ak Samuel Sarr ak mbooloo bu takku eh, ngir rek yàq réunion boobu ñu jàll ci màggal Touba ngir àddu rekk ci mbirum ki nga xam ni moo di soxna Aida Diallo eh, nekkoon soxna nag ci kii di Serigne Cheikh Béthio Thioune eh, moom nag kilifa yu Touba yi tere nañu ko rek ngir mu amal benn yëngu-yëngu foofee ca ngaabu lu si demee ni tànt buy dajale mbooloo wala sax xew-xew bu mu mënti doon loolee nag sëriñ mooduloo Lo ngaabu ma ko xamle mu dolli ci ni moom Aida Diallo mën naa màggalee këram bu nekk ñu fa gis rek benn yëngu-yëngu gannaaw kàddu yooyu nag soxna Aida Diallo ci benn audio bu ñu fësal ci internet bi xamle na ni ñi mu àndal bu ci kenn rek daal di tontu na ñépp ne patt te rek nag ci xas te rek nekk ci xasida yi mu dolli ci ni nañu nekk ci wakaana axan ndax moom loolu rek la daal di wax ñu woyal ba tey rek ñu des ci njabootu ko Serigne Cheikh Béthio Thioune moomu ndax rek gannaaw bi ñu gisee Aida Diallo dem ca Mali daal di fay jënd ay nag yu baree bari di Serigne Saliou Thioune di ki nga xam ni mooy xalifa Serigne Béthio Thioune jëm euh, door na njënd mu nagam euh, jëm ci màggalu Serigne Touba bi noonu nag ay taalibeem euh, di wax si benn vidéo ni Serigne Saliou Thioune bis bu duggee tuuba ak ay nagam dinañu xam ni mooy dëgg-dëgg yi Serigne Béthio ñu woyal ak Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des Mourides moom nag gannaaw bi mu yëkkatee lu toll ci téeméeri million daal di koy def si jumaa yi Tiwaawoon bi waa Tiwaawoon rafetlu nañu bu baax a baax li mu def ndax Serigne Abdoul Hamid si di doom ci Serigne Abdoul Aziz si Al Amin xamle na ni li Serigne Mountakha def day dëggal mbokkoo ak xaritoo bi nga xam ni moom moo am ci ëttu këri diine yi rawatina nag diggante Touba ak Tivaouane alxayri bi jib na ci diggante Soumboulou Bathily ak Serigne Abdoulaye Diop Xaas démb ci alxames bi nag lañu doon selebre seen mariage mbooloo bu bari nag teewoon nañu fa euh, itam seede yi bari woon na ku si mel ni nag Père Zora euh, di Massour Mbaye Madiaga xam le nañu rek lu mu waxoon ci Soumboulou rek lay waxaat ba tey ndax ñaar fukki at a ngi benn kàddu rek lay wax si moom euh, a baax ci sëyam te li mu waxoon ci sumbalu te mu juróon fi coow lu rëy ci réew mi e, ni woon sumbalu rek e, xamul góor e, nit ku teey la tey la ko gën a wax te loolee dina leer ci kanam sumbalu itam yëkkati na ay kàddu si jëkkëram ji nga xam ni rek mooy Abdoulaye Diop Khass di ko jaajëfal di ko gërëm di ko sant bu baax a baax ci sagal bi nga xam ni sagal na ko ko ba noppi di ko ñaanal yàlla mu sagalee ko noonu mu xamle itam ni aawa buuru këram la kon nag ko ñëpp ñaanal bi ñoo ngi koy wax rek heure ménage euh, ba tey ci mariage sumbulu boobu la ñuy desandi euh, ndax rek euh, lu ñuy mën a tuddee miracle dafa am ndax ki nga xam ni nag moo di Mouhamed Niang ak Omaro mu Serigne Béthio mariage boobu boolewaat na leen ndax rek gannaaw bi ñu leen gëjee gis ñoom ñaar ñu ànd mariage bi boole na leen ba ñu génnee leen ñu ànd Mouhamed Niang di woy Omaro di ree leneen lu xew ci mariage sumbulu bi mooy oto Marichou bi nga xam ni amul woon rek fu mu jaar ndax nit yu bari li ko toppoon ba tax sax oto bi mi daa mujjee rek daal di wëññeeku loolee nag di firndeel mbooloo bu takku bi nga xam ni rek moo fa amoon ñu jeexal ak ki nga xam ni mooy woykat bu mag boobu ca Mali di Sidiki jabate euh, moom nag gannaaw coow li nga xam ni bari na lool te mu am jamono ji ci moom ak benn xale bu jigéen euh, bu ñu ne rek da koo dóor ba gaañ ko Universal Music Africa dakkal na bépp collaboration boo xam ni rek amoon na ko ak woykat bi ba tey rek ci xibaar yi ñu mujjee jox euh, moom woykat bi sax yoon daal na koy teg loxo kon mbokk internet yi fii laa yem ak yéen tey ma jox leen dig ëllëg incha incha waaye laata boobu nag wéyal leen di abonné ci 5 TV bu leen fàttee nag bës suñu cloche de notification bi ngir mën a jot suñu yeneen i vidéo jërë ngeen jëf.